et de l'économie sociale et solidaire pour l'invitation que vous avez bien voulu lui adresser pour prendre part à cette importante manifestation. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux à l'occasion de ce saint mois de Ramadan et prier le bon Dieu, le Tout-Puissant, d'accueillir vos nombreuses initiatives au bénéfice d'une inclusion sociale et financière des populations pour un Sénégal prospère. J'adresse singulièrement mes chaleureuses salutations à Sorna Balimbake, marraine de la présente édition, ainsi qu'aux éminentes personnalités de toute obédience ici présentes. La présence de nombreux acteurs clés de la microfinance islamique témoigne de l'intérêt de la manifestation qui nous réunit dans ce saint lieu de la grande mosquée de Masenikulkina, en droit indiqué pour procéder à des activités de solidarité telles que la distribution des zakat. En organisant un panel autour du thème central Finance islamique au Sénégal, efforts et perspectives. Monsieur le Président, vous vous inscrivez dans la dynamique d'une réflexion prospective pour apporter votre contribution au débat sur le financement des projets socio-économiques et sur l'avenir de la finance islamique au Sénégal. À cet égard, je salue la collaboration que vous avez initiée avec les structures dépendantes de mon département, telles que promises. Au regard des qualités des intervenants ici présents, notre département reste attentif aux conclusions de vos échanges. Les multiples activités de l'association HIGMA, à savoir la zakat, la médiation sociale, le règlement des problèmes d'héritage, etc., s'inscrivent indubitablement dans la promotion des valeurs morales et éthiques de la finance islamique qui sont nécessaires pour un développement harmonieux d'une économie sociale et solidaire. À cet égard, il me plaît de rappeler l'adoption en 2021 de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, au titre de laquelle notre département est appelé à coordonner et à organiser la responsabilité sociétale des entreprises c'est-à-dire la RSE au Sénégal. Dans cette perspective, le ministère envisage de déployer dès 2022 ce texte sur l'ensemble du territoire national pour promouvoir le mécénat et l'accompagnement des agents économiques et des populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais exhorter le secteur privé à prendre des initiatives à l'instar de pour accompagner l'État du Sénégal dans sa volonté de lutter contre la pauvreté et d'atteindre l'inclusion financière et sociale des populations tout en tenant compte des aspirations religieuses. Pour terminer mon propos, je réitère mes sincères remerciements à l'ensemble des participants à cette cérémonie ainsi qu'à toute l'équipe de l'association Higman. En souhaitant plein succès à vos tableaux, je déclare ouverte le panel de la journée de solidarité et vous remercie de votre bien aimable attention. Monsieur le Président, Xaadim Lo sëñ bi ah dama doon délivrer allocation madame le ministre Zahra Iyane Thiam wante dama ko bëgg a si wolof ah pour jaajëfal la ziyaare kilifa yi fi toog yëpp sargal leen ku ci nekk si sa wàccukaay mbooloo mi fi toog yëpp tamit nuyu leen si tur madame le ministre. te di leen sargal di leen jaajëfal si xew-xew bi am ah di jàngal tamit benn nuyoo pour madame euh, soxna euh, Bali Mbacke pour soxna Bali Mbacke di ko jottali nuyoo ministre bi nu mu gën a tedde di rafetlu taxawaayam tamit si réew mi ah di ziyaare ñëpp di wax ne activité bu mel nii nga xam ne ñu ko defee si biir weeru koor ah dañ ci sawar a ñëw te dañ ciy sawar a ñëw ndax lan ndax tey madame le ministre moom mooy gérer li ñuy wax microfinance islamique maanaam ah di denc xaalis di dimbale askan bi di leen jàppale si microfinance yi mais si sart yi nga xam ne moo dëppoo ak charia loolu mooy microfinance islamique ah ñu am nag programme bu mag bu nga xam ne banque islamique de développement moom moo ko tëral ak Sénégal nga xam ne mag na programme bu 46 milliards ñeent fukki milliards ak juróom-benn ah promise nag. di ko gérer te POWIS nekk programme bu nekk ci ministère euh, ministère économie sociale euh, ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ah ñu sawar ci si benn fànn boobu sawaraat ci tamit ndaxte dañoo yore économie sociale et solidaire mooy ne nu def ba ñi nga xame ne bokkul ak garde entreprise gàllu industrie ñi nga xam ne ñi ngay dóor waar ñu organiser leen ba ñu mun a ah, seen liggéey gën a jëm ak seen gën seen liggéey mun a nekk ak ndimbal ak mu gën a oyofe donc nag loolu suñu gisee association bu mel ni Xidma ah di yëngatu pour formaliser zakat naam Sénégal ku nekk yaa ngi génne sa zakat wante xëy na nañ koy anam ñu koy génne suñ ko gënee defar gën ko organiser mun na am xëy na njariñ bu gën a mag am donc euh, sëñ bi ñu ngi lay sàngal bu baax di la encourager ndaxte mbir mi yombul parce que door dara moo jafe depuis des années yaa ngi ciy ah yàlla suñu borom yàlla na la jàppale ba fa nga bëgg a organiser zakat ak solidarité de manière générale ba nga xam ne nit ñi li ñuy yëngatu mu dëppoog seen diine yal na ci yàlla yeggal ah loolu daal laa doon wax si tënk pour bañ a guddal di wax ne ministère bi mi ngi association yu mel ni Hikma parce que am na liggéey yu am solo yi nga xam ne fas yéene nañ ko def à partir de cette année. mooy ndimbal yi nga xam ne entreprise yi li ñu naan RSE ñu ngi koy joxee ñu fexe ñu ngi ko mën a organiser ba gën di mën a am njariñ si ña koy jox ak ña koy joxe ak nañ koy joxee donc loolu nag xam naa ni association yu mel ni yéen daañu ci mën a def liggéey bu am solo ak euh, xidma donc maa ngi leen nuyu di leen delluwaat ziar di ñaan suñu boroom ah barkeel lépp te may ñu lépp li nga xamante moom la ñu yaakaar si bi mu doon ndam mu doon succès ah, te njariñ bi ah, lépp yàlla def ab yiw maa ngi leen di nuyu wa salaam. avant loolu ku ne xamoon na banque islamique du Sénégal existé woon na au Sénégal banque islamique du Niger bi nga Niger kon depuis deux mille dix huit ba nii. am na douze autorisations ci ay institutions yoo xam ne agréé nañu kon au total ci Afrique sowu-jant am na quatorze institutions financières islamiques yoo xam ne ñu opérationnelles donc comme pour pour bañ a monopoliser parole bi dañuy dugg rek directement ci waxtaan bi ñu tàmbalee ko nag comme dañoo am si euh, banque euh, ay institutions bancaires am ay institutions de microfinance xëy na li gën a cohérent li gën a logique dañuy tàmbalee ci institution bancaire yi. après ñu doog a ñëw ci promise ak question de yi buñ paree docteur Adama Dieye ñu koy nuyu bu baax a baax gis nañ présence am xam naa ne dana bokk ci ñi nga xam ne war naa commenter ak euh, docteur Khadim Sylla ak euh, ku ci mën a sànniwaat kàddu ndax waxtu yi dañoo xaw a njëtt lool euh, dañoo fas yéene balaa ñoo julli rek incha allah ñu yëkkati jotaay bi te avant loola am na ñu war jël kàddu kon solution yi bu ñu ngi lay dalal bu baax di leen ndokkeel di rafetlu bu baax sa euh, teewaay xam naa des na la jox kàddu gi nga euh, présenter structure bi ñu teewal muy banque islamique du Sénégal waaye ci loolu dañoo xam naa ne ci dix minutes lañ lay may pour mbir mi xam na ndax temps bi dañoo am rek lenn ci ay question loo ne xëy na dañoo bëgg nga lay taaye ko sa waxtaan mooy lan mooy ndax tey muy banque islamique bi Sénégal wala institution bancaire bu mu mënti doon ci Sénégal ndax tey am na arsenal juridique am na lu jëm ci wàllu loi ak cadre réglementaire boo xamante ne nii jàppali na lool ci ñoom pour ñu mën a doxal seen liggéey comme ni mu waree ndax ku ne xam ne banque islamique depuis quarante depuis quatre-vingt-trois moom opérationnel la ñaareelu question bi mooy. bu ñu nee finance islamique Sénégalais yëpp seen xel ci banque islamique lay ndax depuis quatre-vingt-trois ñu waaye ndax xar kanamu banque islamique ga woon mooy xar kanam gi nga xam ne mooy wéy ba léegi ndax coppite am na wala déet ndax am na ñu daan sànni xeer di leen ko wax naan ñoom la li ñuy def wuute wuute li gars yi yeneen banques yi di def léegi nag loolu xam naa bëgg nañ ci ay leeral bu baax a baax a baax nit ñi xam lan moo bees ak lan moo wut woon ni ci ay doxalin Euh, jëfin ñetteelu question bi mooy dañoo gis ne ci wàllu finance islamique am na lu ñuy tudde mu nekk jafe-jafe bu baax baax baax dem ba produit yi wala ñi ñuy financé ñi am jafe-jafe ci wàllu financement yu cher yu demee noonu fiscalité boobu gàllankoor boobu noonu yéen nan ngeen koy euh, fexe ba koy fal seeni client ba nga xamante ne nii finance islamique kat duñ ne moom moo gën a cher finance conventionnelle bi kon suñu changé dañ lay jox kàddu yi ci diir rek nga tënkal ñu loolu bisimilah. mooy fexe ba euh, collecte de zakat bi ñu man koo def de manière efficace loolu nag euh, lii da cee bokk ndax zakat solo si moom ci diine yaakaar naa duñ ciy ñëwaat di ci solo te mooy benn instrument la boo xam ni non seulement instrument religieux la parce que c'est une obligation religieuse.

Euh, ba fu mu bëgg mu yàgg fa mu yàgg fa te lépp doon njëriñu Sénégal xam naa ngir ñëw rapidement rek kon ci ci laaj yi yaakaar naa lu gën a bari ci li nga xam ne mooy effort yi institution financière yi di def ñëw nga ci ci am am ñu mën ko niroole rek ndax ci réew mel ne Sénégal xam nga euh, ci UEMOA sax laay wax finance islamique gannaaw bi mu nekkee une finance inspirée même du droit musulman c'est une finance aussi inclusive C'est si que ñu xam ko ndax daa bari lool ci catégorie ay catégories population que nous nga fait nous nangu offert fréquenter les institutions financières classiques c'est vraiment quelque chose qui est constaté ku on ni suñu tissu nous bi tëddee sax le secteur informel qui est représenté ñu wax ay chiffres de 80 Et cent on ci euh, secteur informel boobu ña ngi fay effets ay doomi daara lañ te ñooñu li ñu jàpp ci seen ay principe ci économique moom dafa xaw a woroo ak finance classique ba tax na ñooñu nanguwuñ di fréquenté institution classique yi donc ci biir loolu day nekk kon même euh, une finance inclusive parce que day mën a xëcc ci ñooñu ñu dugal leen ci biir système financier bi te tant que économie bi système financier bi accompagné wu ko duñ mën a espérer am benn développement économique réew mu la gën a développé rek mooy réew moo xam ne système financier bi moo la gën a inclusif loolu moom amul amul amul amul amul xel yaar kon mboolem nag acteur bu nekk ci biir secteur boobu loolu da ngay yaay da ngay ci yaayoo am njukkal ndax day xaw a doon jihaat comme ni ma ko waxee ci fexe ba indi ay instruments financiers yoo xam ne l'islam da koy nangu nit ñi di ci mën a def seen wàllu économie te bi lépp dëppoog l'islam parce que tey xam nañ ni def économie ci ci moo xam ne système financier bi islamique lu xaw a jafe lépp mën a doon lu dagan lu jafe la kon képp kuy taxaw ngir nit ñi mën a def seen activité économique ci anam goo xam ne lu ñuy tere du ci nekk loolu lu ñuy mën a niróole moo tax eh, yaakaar nañ ne loolu pay googu yëpp la ci ñi koy def di am yal nañu suñu borom boole ñi nga xam ne ñu financier boobu noonu. léegi nag li nga xam ne moo ci nekk mooy mbir système la boo xam ne. tàmbali na yàgg na comme ni nga ko waxee année 82 83 yi li ko jiitu itam nit ñi doon nañ ko doxee dafa doon lu formel waaye nag formaliser ko wala boog ci joxe ay agrément moom effectivement ci année 80 yi comme ni nga ko waxee la tàmbali waaye nag ci agrément dong la yamoon loolu mooy jafe-jafe bi cest à banque comme ni nga ko waxee wala wala sax institution de microfinance dafa am ay eh, dafa am ay institution de tutelle dafa am ñoo xam ne ñooy encadré activité am ñoo koy wax lim sañ ak lim sañu buñ ne leen defal waaye waxuñ la loo war loo sañ a def ak loo sañ a def ku ne xam na ne pour nga développer wala nga def dina jafe sax mën nañ laa jox agrément ne la defal waaye lan ngay def am na cadre bu fi nekk réglementaire boo xam ne lim définir comme étant des produits financiers adapté ak l' financière islamique donc bu la defal finance islamique ba pare jox la cadre boo xam adapté wu ce qui est sûr mooy doo mën def dara. te 83 ba 2018 loolu moo am ci mboolem acteur boo xam ne da nekk def finance islamique xëy na li ko wundu mooy jafe-jafe yi nga souligné ne au début amoon na ci xaw a réticence bi nga xam ne aussi xëy na suñu gouvernement yi amoon nañ ko ak yu bare bari ak sax suñu doxalin réew yi ñu tëddee loolu mën naa mooy sabab bi waaye lu wér daal mooy def finance islamique lu jub 2018 moom amutoon benn cadre bu ko maye woon am na sax ay initiative yoo xam ne dañoo avorté

bu ñu dindee mën naa am li muy wane parce que am réew réewum jullit ne ñu ngay liquider institution financière islam yi xaw naa mën naa jur benn benn benn benn benn wala en tout cas population bi mën nañ ci am nañ ci sentir loo xam ne mën naa bañ a demee noonu ni ñu ko bëggee waaye ku ne xam na ne ñooñu difficulté yi jafe ci lañ doon exercer 2018 nag effectivement sant nañ ci ndax am nañ cadre réglementaire boo xam ne léegi wane na luñ mën a def joxe na en tout cas ay prémices ci luñ mën a def loolu lu am am solo la man 2018 dama japp ne tournant la bo xamné bu important la won ci paysage financier islamique bu réew ci bopam waaye nak instruction yoy yi tamit ba légui dafa am ay incomplétudes yu bari ci am yo xam ni acteurs yi dina ba ci biir rencontre nañ ne effectivement instruction yi bax na trop. waaye amna yenen question yu liyel yo xamné buñ ko résoudre pour ñu def finance islamique ni ñu ko war a ni ñu ko bëgg dina jafe trop question yoy moy ñëw ci sa troisième question bi daanaka moy des questions fiscales des questions juridiques parfois contrat est-ce qu'un notaire dina ci même dina ko même qualification juridique par rapport à bu banque conventionnelle moko exemple une joxe banque conventionnelle accompagne accompagner un projet de financement immobilier c'est un acte d'ouverture de crédit Si xam notaire bi su koy su koy su koy fiscaliser na appliquer un secteur bi nga intervenir à travers un instrument financier islamique je na assimiler comme un acte d'achat et de vente wala un acte un contrat d'entreprise entreprise tout simplement boo xam ne bu koy fiscaliser vous naa passer de 1 à 5 au minimum donc 4 selon le sur montant bu ko client bi de plus même bu ko banque bi supporté dina ko obligé donc question fiscale yooyu bu régler ko question yooyu nga xam ne mooy jox notaire apprécier un contrat islamique comme étant un contrat de financement d'abord. abord balaa muy xool yeneen yeneen a yi ci nekk loolu bu bu kon da ngay gis ne foofu ba léegi nag vide dafa am bu baax a parce que code général des impôts li mu prévoir aussi ci fiscalisation produits financiers islamiques yi dañ koo prévoir en dehors du cadre bancaire donc tey jii nii boo fa demee di fa fekk ay produits de vente yi nga xam islamique mais en dehors du cadre bancaire donc c'est une vente qui est boo xam ne régime fiscal bi ci applicable mooy la TVA qui est différent de la TAF bi nga xam ne 17 la TVA 18 donc il y a une différence de 1 Si vous bu ko sur un montant de 1 milliard par exemple ça fait des chiffres ça fait euh, au moins 10 millions de plus sur l'opération, 1 pour cent donc loolu tamit buñ ko réglé wut 10 ci opération c'est-à-dire li muy jur te xam naa foofu lay tëjee mooy soit banque bi nangu ñu assimiler ko comme une vente mu fay ci taxe boobu client bi supporté ko mu wala mu am ay astuces yu koy permettre mu am des contrats sous sang privé présenté ko ne ak des contrats islamiques mu garder ko loolu mu am un dualisme juridique boo ci amee problème ëllëg un litige devant un tribunal ban contrat moom la ñuy moom la ñuy faire appliquer ban contrat la ñuy sukkandiku pour atte litige boobu noonu est-ce que c'est un le contrat sous sang privé bi nga xam ne moom la notaire bi xam wala contrat bi banque bi garde woon signé ko ak client am kese wala boobu nga nangu dem ci notaire bi fa le contrat islamique mu qualifié ko juridiquement comme une vente fay loola TVA nga supporté la ko keneen tamit bu boobaa nga doo compétitif par rapport ak secteur bi nga nekk su boobaa nag li am mooy client bi nga xam ne moom contrôle islamique bi ñëru ko ci lool day dem seet yeneen banques yi yi ngay garder comme client rek mooy ñi nga xam ne xëy na ñoom dañoo am gëm-gëmu ne finance islamique bi dafa war a dox te tey li muy jublu mooy tamit

lool nag day day day doon question yu nga xam ne jàpp naa ne pour ki du jullit sax yooyu day doon question yu gën a yu day fekk ci biir finance islamique instrument yoo xam ne day adapté loolu loolu par rapport ak ak métier bi nga xam moom lay def loolu nag jàpp naa ne c'est des défis à relever mooy perspective bi mën ngaa jël ne tey jii nii côté fiscalité côté juridique yooyu c'est des défis côté comptabilité amoon nañ ko ak dispositif prudentiel bi parce que issu du de ça va être des issues favorables qui une institution financière définitive en tout cas ils vont demeurer Voilà, vont persister ci ci difficultés là, des difficultés effectivement fiscales et des difficultés juridiques pour tout le ci la bi islamique la banque islamique a changé waaw le wér là, cest à La banque islamique a changé à partir de 2018 Le monte a il changé il y' a des idées reçues yu bëri ñu xam banque islamique avant 2018 duñ am impression yu baax te loolu il faut que ñu léeg-léeg ñuy jël temps leeral léegi avant 2018 banque islamique def dara wax naa ko sànq le cadre qui n'était était là c'était pas un cadre adapté te ab agrément dong la amoon. lu mu a def tamit te loolu sax dafa jàpp naa ne njàmbaar la déjà avant 2018 ngay def di jéem di tudde say contrat moral baax di wuti sa effort parce que boobu xamoo ne sax da war a am comité charia parce que un comité l'obligation même de mettre en place un comité charia 2018 dañ li ngay def mooy dangay ngay woo benn waaye mu xoolal la sa compte là bi est ce que problème islamique pour nga mën koo lever depuis 2018 nag avec la réglementation effectivement actionnaires yi nga xam ne ñoom man ngànk banque islamique di def effort yu rëy rëy wax dëgg yàlla ci côté formation ci coté fexe ko contrat yi nga xam ne contre offre islam offre bépp dañ ko xoolaat def ay contrat yu bees adapté validé par les membres du comité de charia ba pare tamit wu nekk une banque à cent islamique ci ab loolu yaakaar naa ne lu lu am am solo donc changement bi am na réellement mais nag pour population yi mën koo constater dëgg-dëgg ni mu waree faaw ñu jël tout temps parce que am na lu ko fi jiitu woon loo xam ne ba léegi moo marqué ñu bare bare kon daal na ñëpp jàpp ne moom xar kanam ba islam moom soppeeku na bu baax a baax a baax depuis 2018 comme ni ko waxee rek 2018 mën nañu wax ne mooy année charnière u finance islamique au Sénégal ndax ñu bëree bëree bëree bëri euh, soppi ko na ci wax na lu jëm ci wàllu charia board ku ne xam na ne banque islamique 1983 bi ñu ko agréé dafa ñoo nekkoon ñoo doon actionnaire majoritaire bi. fii nag au Sénégal yàlla dogal na la Alaaji euh, daaral maalal islamique bi ñu sampee banque islamique fii au Sénégal samp ko Niger muy banque islamique euh, du Niger. amoon na benn charia board bu ñu tegoon waaye xëy na nañ ko waroon a taxawoo dafa des Serigne Maodo Sy wala ji Abdoul Aziz Serigne Sambay imam di Niger ak imam di Conakry bi ñooñu ñoom ñoo composé woon charia board bi loolu taataan nañ ko ci ci njëkk a nekk directeur banque islamique fii au Sénégal kon nañ jàppale daal seen choix kon affaire bi mu ngi changé am nañ jot ne incha allah rabbi dana changé kon nag xam naa ne côté communication moom dana baax loolu bay ci waar pour bañ a guddal ak temps bi ni muy xaw a xojee dañuy jublu rek ci waa Coris Baraka ku ne xam na ne Coris benn banque bu mag la bu nekk ci Afrique ñoom am yéene ubbi benn fenêtre benn poqanal ci finance islamique banque boo xamante ne xëy na ci système classique lay doxe waaye gis ne que am na benn fenêtre benn fenêtre boo xam ubbi ci wàllu finance islamique depuis 2012 nag ñu def ci ay yu mag a mag léegi nag. fii ci Sénégal it seen euh, ñi am fii Coris Baraka ñi ubbi ko fii ci Dakar ubbi ko fële ca Touba am ubbi ko fële ca Thiès am yéene yi vraiment ubbi ko fu bëree bëree bëri ci Sénégal di sant bu baax a baax a baax monsieur Amadou Bassène mi nga xam ne mooy responsable euh, finance islam département finance islamique au niveau du Coris Banque ki nga xamante ne nii moo nekk ci jotaay bi di Serigne Moustapha Mbacké muy chef d' agence Coris Baraka bu Touba kon sëñ Moustapha dañ lay jox kàddu gi rek nga indil ñu lenn ci ay leeral ci fenêtre bi nga xamante ne nii Coris ubbi na ko muy poqanal ci wàllu finance islamique defe ko ci anam boo islam Coris nag mën nañoo wax ne. mooy premier institution bi nga xam ne moom la banque centrale agréé pour ubbi une fenêtre islamique ndax ubbi benn poqandalu finance islamique ci banque boo xam ne conventionnelle la ndax loolu dana garantir cent pour cent doxali bi ni ko l'islam bëggee yan assurance la client bi la Sénégalais la jullit bi mën a am que ne kat bu demee CORIS fenêtre islamique CORIS banque boobu noonu. dana fa mën a am jëflante boo xam ne dana dëppoo l'islam à cent pour cent ñaareel ba mooy nan ngeen def nan ngeen doxalee ci wàllu personnel dédié li ñuy tuddee personnel bi nga xam ne ñoom ñoo war a liggéey ci fànn woowu ndax ñoom personnel bu fa nekkoon la wala dañ leen a former wala nan la demee daal loolu bëgg nañ ci leer ñetteel bi mooy gis nañ ne effort yu bari na ci wàllu finance islamique institution yu koy def yëpp waaye implication boole gi nga xam ne nit yi diine yi war nañ leen cee boole quelque part te communication bi ñu bëree koy jàmbat xëy na nag lii ak ndorteel la waaye am na njort na xëy na mbir mi dana gën a jëm kanam wàll woowu nan nga a gisee ne wàllu euh, nitu diine yi am nañ ci rôle bu mag a mag a mag. buñ mën a taxawu ci wàllu communication ba askan wi bi mën a xam dëgg-dëgg lan moo tax a jóg système bi kon sëñ Moundou Moussa Tall dañ lay bàyyee kàddu. jërëjëf docteur Abdoulaye Diakhaté ñoo ngi tàmbali rek suñuy kàddu ci di ziyaare mbooloo fi teew yëpp di leen nuyu di yëkkati nuyoo bi ko teg ci docteur Serigne Khadim nga xam ne. xam nañ liggéeyam ci finance euh, islamique xam nañ ne yemul rek finance islamique waaye mën nañu wax économie islamique de manière générale parce que depuis ñun ñu xam ko mooy ñi njëkk a xam muy yëngu ci wàllu boo xam ne xam nañ ne dana maanaam euh, benn instrument islamique la boo xam ne xëy na mën na euh, jariñ ci développement économie wu réew mi nekk mën na jariñ nit ñi tamit muy lu aju ci zakat waaye yëngu woon ci zakat rek waaye daf cee daf cee boole woon li ñu tuddee promotion euh, euh, de la kon loolu ñun ñu ngi ko moom ak ñi nga xam ne ñëpp teew nañ fi ñu bari ñoo xam ne acteur lañ ci ci ci ci France islamique nga xam ne gis leen ci euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar <laughs> ñu bari sama professeur ba ñu amee daal bu baax a baax waaye kenn ku nekk di wax na rek xëy na. Euh, tey diine ñun ñëpp xam nañ ne diine lu mat la euh, nekkul ne tey ñu bari ñu ko ñenn ñi di jàppee mooy dem ci jàkkee ji peut wala yenn yi nga xam ne jàpp ne diine foofu rek la war a jëm te lu bari ne diine li ci ëpp solo moom mooy jëflante ci boppam te yonent bi sallallahu alayhi xam nañ ne wax na ne ak diinu al-muamala maanaam diine jëflante la te jëflante suñ ko waxee léegi nag euh, moom Mm, mën nañoo yokk rek ci ne eh, xëy na du ñàkk ñu wut ay yoon yoo xam ne dañ ci jaar pour euh, du ñàkk bi association yu mel ne FICMA nga xam ne ñoom dañuy yëngu ci di jéem a dajale ay asaka parce que tey jii du ne institution financière muy banque wala muy microfinance wala bu mu ci mën di doon tey jii ñoom en euh, seen activité ya ñuy def bu fekkee ni lu dëgg maanaam euh, lañ liggéey baale bi jeex ñoom seen bopp ñoom ñoom seen bopp dañoo alal yooyu ñuy génne dafa am fuñ koy fuñ ko maanaam fuñ koy jëmale tey lu mel ne CORIS par exemple daana def ay activités sociales yu bari yoo xam ne peut-être ci loolu la ko daan la ko daan jëlee def ay dons par exemple ci ay orphelinat lu mel ne ay orphelinat soxna Diané bi nekk Touba yenn association yi yi nga xam ne ni peut dañuy yëngu ci luy jariñ luy jariñ nit ñi di may général souvent pour une grande cible mais tey jii lu mel ne xikma bi fi ñoom danañ gën ñan lañ koy mën a jubale ba nga xam ne dana mën a parce que diine tamit bu dul dara zakat dafa am wax ni ñoom ñoo ko yeeyoo ñooñu aussi ñoom rek ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko euh, loolu moom mooy li nga xam ne euh, jàpp naa ne lu mënul lu mënul lu mënul ñàkk la ñu jëm ko ñu jëm ko préciser jëm xool ban partenariat ban ban partenariat la ñu am mais ba am yam foofu mais aussi comme ñu bari ñuy liggéey ñun la ñuy jëflante tey euh, souvent dañuy soxla say con say conseillers ci nan la ñuy génnee asaka euh, xaalis bi liggéey bu ma noppee lan ak lan ak lan ci doxee pourquoi pas nga ma leen ñu mel ne ay euh, ci lu am na kilifa boo xam ne toog nañ maanaam bi muy génnee asaka dafa ma woon ñëw toog ñu maanaam ngir ma jàppale ko ci moo xam nan lay ak la war a te booba may fàttali bu baax la mu jëlee ci asaka am na cinquante millions tey jii pourquoi pas lu toogoon ak seen xaajal président wala yu mel ne moom xëy na dana leen mën a jàpp dinañ ko mën a jàppale ñoom ba la ñuy génnee moo a impacté donte amoon nañu ko daan jox ñoo xam ay ndimbal rek waaye nag bu fexe ba ñooñu ñu koy jox bu ëllëgee ñu bokk ci ñu mën a génn asaka mais pas rek euh, jox leen bu ëllëgee ba dimbaliwaat leen bu parce que la nga leen jox lu ko lu ko lu ko lu ko jàlloon léegi euh, ngir développer finance islamique parce que lu bare bari li waral nit ñi am benn résistance bi parce que communication bi des fois mooy des tey mut laa wàcce mu ñëw di wax nit pour convaincre ko mu ñëw du compte wala mu ñëw euh, jàpp ci saa bi peut être euh, mën na ci sawar maanaam certainement peut être ci na ko na ko waxee ba convaincre waaye su fekkoon ne dégg na dégg na kàddu kilifa dugg ci loolu daf gën a may benn euh, daf gën a a may benn assurance en tey jii par rek man mi nga xam ne day jàpp ci pour xool nan lay mën a def ba euh, ba fexe ba euh, client boobu ñu ngi tey jii ñu déggoon kilifa yi wax jéem ci orienté nit ñi jéem xamal euh, njariñu nii lan la parce que nii ñi moom xam nañ ko doon wax bu yàgg wax naan man ne lu ma ne dëkk bii ñu nekk dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy jëflante lépp ne moo doon solo dañuy jëflante yëpp dañ ci bàyyi xel léegi tey nag ñu mel noonu juste rek duñ déggoon seen kilifa wax ko dana dalal seen xel ne ñii lañuy def peut être du luñ teg fenn waaye nag loolu aussi suñu liggéey la ñu am tam ñu dem ci kilifa yooyu leeral leen ko bay mën a xam la wax fan lañ koy maanaam euh, dañu ko mën a teg wóor wala déet loolu moom suñu responsabilité la ñun waaye ñoom itam seen jàppale ak xam a ak euh, nag moom moom que domaine bi ñu ci nekkee bokk na ci ñi ci gën a ñi ñu ci a baax deuxième bi tam finance islamique bi thème bi am na solo lool mais dama si bëgg a junj rek ni benn pomp la ci li ñuy wax économie islamique moo gën a yaatu ndax économie islamique ëmb na état ëmb na lépp loo xam ne dem na si production dem na si

il a deux ans ma ñëw ni ma dafa bëgg dugg si finance islamique nan laa ko mën a yeddee mën na kat benn boo ragalul yàlla bàyyi loolu da ngay takk parce que affaire bi loolu la mooy dañ lay wax ni daal lu mu mënti doon boo bëggee koom si islam da ragal yàlla taqwa am iman noonu laa ko leeralee beneen bi may wax tam sunu xarit yi nga xam ne ñoo ngi liggéey si banque yi mooy dafa am beneen défi ñoom war nañu xam finance islamique la nga xam ne sax ci loolu la waaye nag war nañ ko mën di expliquer seen client yi ba mu leer seen bopp donc loolu mooy li may am na ko ko sa jund mooy mooy même ñi nga xam ne ñàkkunu finance islamique waaye lu ñuy mën di yëngatu danoo war a xam la leen sa alxuraan wax si marché par exemple boo dugg si jënd jaay war nga xam ne loolu laa am waroo def garaa waroo waroo waroo waroo ger yëpp dafa war ñu leeral leen ko donc muy effort d' éducation problème boobu noonu am finance islamique fii moo tax xëy na ni mu mën a gaawee dana dana xaw a yeex damay wax rek exemple Malaisie pour ñu am rek benn banque finance islamique def nañ dix ans tegaat yeneen ñaar fukki at yeneen fukki at muy ñaar fukki at ñu doog a yokkaat assurance boo xam ne lépp finance islamique la donc moo muy loo xam ni ñaar ñëpp a si war a jàpp état war na si jàpp sëriñ si ñoom si jàpp xanaa kañ gën a war a gën a yaatal njàng moo xamalaat bi mooy jëflante bi bañ ko rek yema yemale si ibadaat parce que boo xool Sénégal ibadaat bi nañu gën a ñu bari dañu ñu bari ñu bari moo xamalaat bi dara nun si wax kooku bu beneen effort la boo xam ni dem na sax ba maa ngi si doon waxtaan suñu benn kii benn seen xaalim Mbàkke bu IFAN ñu si waxtaan dem na ba université war na ubbi ah, enseignement économique islamique lu yaatu la ñu am presse bi ñu doon loolu laa si doon bëggoon loolu euh, si commentaire bi sëñ Ablaye. amay as ñëw ci wàllu ay après chef commande nar a fekk bi euh, ku ne xam na ne microfinance euh, secteur microfinance islamique au Sénégal PAMECAS lañ mën a wax ne mooy première institution bi njëkk taxaw ngir def ko mu defoon ko rek ci waxtu wu jafe ànd ceeg rahmatullahi alayhi Mamadou Touré yàlla ko yàlla yërëm mu amoon ci taxawaay bu rafet a rafet rafet rafet pour bañ a guddal rek am na ci loo xam ne mënuñu koo développé ndax temps bi mayuñu ko dañuy jox rek Serigne Bachir Diop kàddu yi bu Babekas mu ñëwal ñu ci lenn rek ci seen département finance nationale boobu ngeen ubbi woon depuis 2010 ak jafe-jafe yi ku ne xamal na ne yombul woon ak ñaareelu question bi mooy. dañoo seetlu ne PAMECAS ci ndoorteel bi ñuy doog a jiite islamique ñëpp xamoon nañ ne vraiment amoon na taxawaay waaye année yi ñu gis ne doxin bi dafa xaw a teg kaaral tuuti loolu nag ñu bëggoon ci ay leeral dafa xaw a tibi daal surtout seen péréquation la ñuy yooyu moom daal taux de péréquation bi léegi foofu noonu ngeen expliqué lan moo tax ndax initiative yu ñu ci gannaaw coow yu bëri. di sant Serigne Khadim. mais xam chaque fois boo organisé journée bi vraiment dañ ciy associé euh, di ko sant di ko gërëm bu baax a baax. Euh, Pamecas nag ni ko xamee moom institution de microfinance la boo xam ne yàgg na fi daanaka mi ngi ci région yëpp du Sénégal ci microfinance conventionnelle ci la nekkoon yaa ngi tudd jënd jëmm joo xam ne wax dëgg yàlla ku jar a fàttaliku la ndax en 1900.

acteurs yi nga xam ne ñu ngi ci finance islamique ñu ci bëree bëree bëri jaar na ci expérience boobu mu nekkoon nag moment boo xam ne dafa difficile parce que 2010 la ñu ngi wax léegi ne texte yi ñu ngi commencé ay 2018 te ñun am na 2018 la première classe 2010 la commencé expérience boobu ci condition yu difficile nag waaye pour vous dire que rek yéene bi nga xam ne moom tur amoon na ko pour lépp dëppoo di diine li mu njëkk a def mooy li ñuy wax charia boobu mooy ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu ñu gunge ñu ci loolu bi ko defee ci lañ commencé nag di commencé activité yi dans un contexte très très difficile bi ko defee am nañ ndax li ko waxee léegi jox dañ la waaye nag ni ngay defee duñ

dafa am aussi ministre de l'économie et des finances boo xam ne mooy say say secteur yi tàmbali nañu waaye nag dañuy ndegam loi bi ñëw na il faut que nag ñu conforme wu ci loi bi pour waxaat la benn affaire rek ne léegi nit ñi yaakaar naa seen xel mën naa dal ndax pour toujours dañ naan finance la mi dafay war ci suñu dëkk yi nga xam ne ci état bi tënk ko ci diine dañ naan dafa war a conforme wu ci loi bi dafa war a conforme ci ci loi islamique bi mais man damay wax ne léegi choix amul ñépp dañuy conforme parce que loi bi ci kaw moo ne il faut que mu conforme mu charia loolu tax bi bi ngay wax bi ngay wax bis ma ne bis ak PAMECAS ak tey si nag képp ku bëgg a def finance islamique amoo choix il faut nga conforme ci diine ndax loi bi ci kaw moo ko imposé kon donc conforme du ko ba moo donc loolu da nga mooy bi nga xamee nag taxe yi ñëw na il fa que nag ñun ñu commencé nag di régulariser wut ay autorisation te loolu nag xam ay étape lay doon ay procédure lay doon ak ñu lay laaj ngay dem ak a ñëw ci procédure boobu lañ nekk donc mën nañu xam ne pour le moment ginnaaw jafe-jafe yi amoon en 2014 loolu moo gën a xaw moo gën anam am indi timidité bi suñu activité waaye ñoom li ñu jàpp rek dañ naan dañ naan expérience bi li ci mën a xew rek barkeel na te lépp tam wax di yàlla moom la moom di suñu ko santé parce que boo xoolee fii ñi nga xam ne institution yëpp ñi nga xam ne yëpp yëpp loolu koo ci gis ku ne rek jaar na ci expérience boobu waaw loolu tam mënu si ko quantifier nii waaye loolu tam lu am solo la te yaakaar naa ne lépp loo xam ne ñu koy organiser ci finance muy BCEAO muy fan partout il faut que ñu jël expérience su FAMECAS xool ko jàngat ko te même bi nga xam ne loi bi ñëwee na dañoo gis ne ñu doon def lépp pratiquement quatre-vingt-dix pour cent yi loi bi da ko dëggal kon kon da dafa ma ne Mamadou Touré vision bi mu amoon manam dafa cas heureusement que wutoon na ay experts ay ñoo xam sen seen ñu ko doon conseil maanaam dafa li waat bi ñëw dafa dëggal li doon def donc loolu dal pour li ma lay wax moom mooy lan mooy ndax ñun lépp am nañ ko am nañ charia bot suñ système d'information information changé nañ ko du ma wax ne sax 100 baax na am na lu des waaye loolu loolu moom mën nañ commencé am nañ formé nañ personnel bi même dirigeant yi formé nañ donc am nañ même côté assurance

waaye ñun kon dafay mel ne li ñu des mooy rek ñuy jox ñu autorisation pour ñu ñu gën koo yaatal pour le moment nag ñeenti gisee fukki fukki gisee la ñu am na juróom-benn yu nekk Dakar am na ñeenti yu nekk ci région yi Touba ci la ko ci partenariat tam signé ak ñu bari comme ça lu mel ne promise bi signé nañ ak montant boo xam ne 2 milliards la. déggoo rek am na benn convention bi ñuy préparé ak euh, Touba ca kanam parce que ñoom tam dañoo bëgg yëngatu ci zakat waaw. ñu ngi préparé benn convention boo xam ne dañu ko signé pour ñu ñëw ci ñoom pour vous dire que ñun même ñun sax ci biir Tamekas ci départ bi rek charia boobu moom orientation mooy loolu mooy que il faut que ñu dimbale suñu membres yi ñu ci sa zakat loolu tax même ci fiche d'adhésion yi dañu leen doon demandé pour ñoom li nga xam ne am nañ ko Tamekas bu ma teel at critère euh, ñu jëkk yëpp ah, mu remplir ko ñu jëlee lañ waaw moo wax benn anecdote rek boo xam ne.

la dëkk biñ ko convoqué bi ñëwee da ne man de sama kër cin tàkku fi loolu la sama kër sama kër cin tàkku fi après yàlla tombé bis boobu ba muy séddale asaka yi keroog lañ biñ ko joxe ci dañ koo jox dañ koo jox ci asaka yi ci la dem liggéey ba fayal <laughs> waaw loolu loolu loolu ci kamikaze bi fën na ci boobu koo xam ne lañ ko doon laaj mën koo fay mu ñëw ne ma ne kat yéen nga ma waaye sama kër ci tànk fi tag fa yàlla tombé ñuy séddale asaka ji ñu ñu ne kon nañ ko dañ koy jox bi ñu ko ñu joxee ca loolee dem liggéey ba fayaat donc loolu tam yaakaar naa lu am importance la pour illustrer thème bi te yaakaar naa ne tam partenariat bi suñu xarit dañuy wa incha allah dañu ci continuer parce que pour le moment xam nga nit ñi moom tant que am buñ autorisation ça duñ mën a <laughs> yëkkati bopp foog dañuy taxaw ba ba lépp di ñu door a naa kii waaye incha allah yaakaar naa ne incha allah lépp dana dana gën a ngi ci leeral ñu ngi la ci sant bu baax comme waxtu yi dañoo xaw a gàtt ci waa Taysir Taysir mën nañoo wax ne mooy leen di dalal. di ñaan yàlla bu baax baax ngeen dugg ci marché microfinance islamique ci duggin bu mucc ayib bu suuf seen njort ki leen fi représenté mooy Alxasan si am nag ak monsieur Alxasan moom mooy panéliste bi dañoo am rek quelques questions yoo nga xam ne dañ koy jëmale ci yéen. waxee rek tey si microfinance mooy institution financière islamique bu njëkk ci Sénégal. boo xamante ni moom la banque centrale jox agrément boo xamante ni ñun tey lu ñu war mooy def lépp li nga xamante ni tey dafay euh, dafay méngoo suñu diine ñun Taysir amul droit def li fi nekkoon finance conventionnelle parce que amuñu agrément boobu ñun agrément bu ñu am mooy agrément finance islamique finance islamique nag moom mooy li nga xamante ni lépp lu ñuy def dafay méngoo ak diine léegi nag bon ñi ngi soog a ñëw nag euh, am na lu fi nekkoon ba pare am na loo xamante ni sénégalais yi yàggoon nañ ko gis et tout mais ñun damay wax ni ñun suñu ñëw mooy tey andi sénégalais yi leneen lu bees loo xamante ni peut-être amaana mun nañ ni amoon na sax mais xamuñu ko woon parce que finance islamique li si nekk dafa bëri trop trop trop trop trop mooy li ñuy wax sànq rek buñ ci toogee tey di ko détaillé kenn si bari buñ fi jógee tey di wax léegi ñun si wàllu boobu nag la ñuy ñëwee nag di leen wax ni tey euh, li ñuy def ñëpp si xaj li ñuy def ñëpp si xaj nekkul ni tey dañu ñëw rek daal ñun ñii la ñuy ciblé nekkul ñu ñëw ñu ne ñun tey parce que am na ñoo xamante ni système bancaire da leen exclure am na ñoo xamante ni tey bu fekkonte ni même bëggoon nañ sax. dem di defi ji finance classique bi biñ leen fa jël ñun dañoo ñëw nag ñu ne ñun ki nga xamante ni sax jaaykatu caaf bi si bunt ba sax bu ñëwee si ñun ñun dañ koy jël parce que finance islamique boo koy def dafa am volet social volet social boobu noonu mënoo ko rek moo tax si cadre boobu noonu sax yaakaar naa après saa kii wax nañ si sànq après dinañ si ñëwaat bu soobee yàlla après bu kii bi jeexee parce que il faut aussi tamit euh, association bi jàppale ko parce que finance islamique dafa am zakat ñëpp xam nañ dañ ko war a génne soit sama mbokk bi wax na ko sànq si li nga xamante ni ñuy génneel clients yi ak li nga xamante ni société bi si boppam daf ko war a génnee société bi tey bu demoon tey ba def bénéfice maanaam ñu liggéey liggéey liggéey parce que tamit liggéey la nee nañ finance sociale la mais aussi tamit liggéey la parce que dañu luye fenn di fay ay location di fay lu nekk di def lu nekk donc am na loo xamante ni aussi tamit war na si mën a génn léegi pour nit ñi gën a xam rek lu leer bon euh, tey bi ñu koy def tey bi ñu nekk tey par exemple euh, du ñu joxe xaalis. du ñu jox xaalis du ñëw nit ki du ñëw di la jox xaalis contribution bi ngay am mooy yow da ngay ñëw financer économie tey jaaykatu caaf bi toog si suuf di jaay caaf kooku boo ko joxoon xaalis tey da koy sonal mais boo ñëwoon tey xool nan nga koy jàppalee ba nga xamante ni moom jaay caafam kat benn taabul la amoon dinay xool tey moom nan lañ mën a def ba nga xamante ni taabul bii ñetti caaf moo fi nekk nan la ñuy def ba mu am ñeenti caaf. leneen ak leneen leneen ak leneen ak keneen ak keneen ba ci ki nga xamante ni tey moom mun nañ ko wax tubaab bi da koy wax industriel koo xamante ni moom dafa am maanaam affaire yu mag la am yu nganda ngand yu yor société yu mag ñooñu noonu aussi tamit dañ di jàppale parce que liggéey moo demee noonu finance islamique moom dafa nekk loo xamante ni dafa fas donc euh, tey si si loolu la ñëw ba nga xamante ni bon mu ñëw nii ku nga xamante ni da nga dem système ba la exclure la kële la du ma la jël kenn la ah du ma la jël parce que ñëpp xam nañ tey boo demoon banque tey boo soxla benn affaire sax dinañ ne la garantie dinañ ne la ah garantie lii andi lii ma jox la lii andi lii ma defaral la la andi lii ma defaral la la ñoo ñu ne noonu nit ñi mun na ñëw dinañ ko jàppale si benn fànn boo xamante ni moom dina si gis boppam ñun tamit ñu gis si suñu bopp parce que loolu tamit am na solo intérêt amu am na li ñuy wax marge bénéficiaire parce que jënd ak jaay kooku moom suñu borom wax dagana donc si fànn boobu noonu la gën a nekk di développé ba nga xamante ni tey vraiment finance islamique dina gën a développé mais comme ni ñuy wax euh, commencement bi nii du yomb parce que aussi il faut ñëpp jàpp si ñëpp jàpp si mooy suñu wax nañ ko sànq sama mbokk yi wax nañ ko sànq wax nii kilifa diine yi parce que c'est normal kenn mënul def tey finance islamique parce que réewum diina lañ nekk réewum diina lañ nekk suñu nekkee si réewum diina nag dafa am ñoo xamante ne ñooy sa njiit ñooy jigéen ñoo xamante ne ñoo yor kàddu bu ñu waxee nit ñi dinañ leen déglu moo tax ñun si loolu sax ñun balaa ñuy tàmbali aussi tamit demoon nañ si màggal bi si sëñ bi sëñ bi ñaanal ñu jox ñu autorisation ñuy soog a tàmbali suñu mbir te incha allah bon ñi ngi soog a démarrer nag Dakar rek lañ nekkagum mais bu soobee yàlla Touba après lañ jëm parce que tey kenn mënul wax ci développement économique wala finance islamique te doo wax les guides kooku moom kenn mënu si rëcc tamit nit ñi ñi ngi toog di liggéey mais ku si nekk yaa ngi lenn loo xamante ni bëggoon nga tey muy jaar foo xamante ni dafay méngoo ak sa diine dafay méngoo ak sa diine loolu tamit lu am solo la lu jar a boo xam naa bi may wax ni waxtu bi jeex na maa ngi di sant di leen gërëm di di ñëpp di gërëm ñëpp macha allah jërë ngeen jëf. def na ci panélistes yi ñoo xam ne xëy na seen kàddu mën naa eggu seen kàddu eggul ñu xam ne ñaar yooyu yi nga xam ne ñu ëpp solo ci contrat yi nga xam ne pour dimbale nit la mooy az-zakat te seen xaadim ràññeeku ci ak al te ñaar yooyu fi ñu toll nii Sénégal mënuñu dem si kanam tant que la fiscalité xoolaat ñu fu ñu koy waxee dañu bàyyi fiscalité c'est-à-dire la défiscalisation de ces deux contrats là loolu tant amul mënul jëm ci kanam li dañ koy yëkkati ci jotaay bi dañoo nekk réew moo xam ne am nañu état boo xam ne mën nga na lay la de waaye yàlla xam ne xeexul diine ay doomu jullit ñoo fa nekk am na ñoo xam ne suñ ci jàppul rek dañoo xam mbir dañoo xamul mbir yi solo si la am tey jii sooy seetaan télé wala ngay déglu rajo da ngay gis souci bi ñëpp am pour jàppale xale yi souci bi ñëpp am pour am améliorer condition de vie nit ñi tey jii neexul nga nekk ci mbeddu Sénégal gis doomu jullit ñi condition yi ñuy nekkee nit ñoo ngay dem mu ne la suba ba léegi lekkuma même soo amul loo ko jox yàqal na la sa journée. te nga xam yàlla subhanahu wa taala li mu ci def ci ak richesse bi ci biir nit ñi nga xam ne bés buñ ko géré rek niñ ko war a géré mooy kenn ku nekk li nga ci war a am wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina